Demba Malick mbas mi moom nekkam ci dëkk bi ak ay jëfam ak yàqam te nattableetu ko mi ngi gën a am doole ci dëkk bi ba léegi dem na ba ci mbirum koom-koom sax daf ko sooxeel ba dëkk yi ci seen biir jëflante yan daan jëflante mënatuñ ko li nga xam ne ab dëkk daan na ko ñàkk dem wutu ko ci beneen dëkk léegi mënatuñ ko xanaa li ci pexe mooy bay dunde pexe la waaye jasit moom loolu nekkuloon pexem jasit dafa dëkkoon ci deex gi ci àll bi amoon fa benn xaritu benn bakkan bu naan bàyyi copine seen ñaari jaboot yi xasoo woon lool ba jasit ne dootul lekk copine moom daal mën naa lekk lu ne am des copine ndax xaritam la booba nag laata mbas mi ñëw la ndax laata mbas mi ñëw mënoon naa am ci kéwél yi wala ci ñamale yi wala ci mbaam àll yi wala yëpp rab ya daan ñëw di naan si ci dex gi mu mën caa am ngir am lu mu lekk ak ak njabootam bi mbas mi duggee ci dëkk bi ci àdduna wërngal képp ñoom it danoo doxañu maanaam dex gi kenn dootu fa ñëw jasit toog ba si mu yàgg mu sonn lool ci xiif ah xel mi dem ci xaritam ba koppin moom rek moo fay doxantu si de mu ne doom yi copine sax daf dafay xaw gëj léegi dañuy def pexe ngir bu ñëwee ma man koo jàpp ñu am lu ñu lekk dama bëgg ngeen dem ne ko sama baay dee na bu ko defee comme sama xarit la dina ñëw taxawu noonu mu daal tëdd jaaxaan yabal benn doom ji mu dem ca bàyyi copine xamal ko ne baayam dee na bi mu yegsee ci bàyyi copine ne ko bàyyi copine ak i jooy yenu loxo ya ne ko bàyyi copine sama bàyyi nee na dee na <laughs> bàyyi copine jaaxle lool ci wax ji waaye gone man a wax dëgg mu ne ko ah nañ dem xooli ba xam daal di jiitlanteeg njabootam moom it ne comme xaritam la na dem xooli ba xam xale bi li muy wax dëgg la am du dëgg bi mu dikkee ba jub si copine jasit daan ne doom yi na ko dànd ndax man lii doyuma dara bi tollee ca àll ba fële ne ko ah sama xarit man de am naa lu ma metti ndegam dee nga waaye damaa bëggoon a xam nag ndegam dee nga bala malaa laa bu dee dee nga rek yëngalal sa genn ma gis jasit ko bëx bëx bëx bëx bëx bëx bëx yëngal genn ga moom ngir wan ko ne dee na <laughs> mu ne ko ah kon de yow dee nga waaye nag ngir mu leer ma ne dee nga dama bëggoon nga ubbi say gët maanaam danga dama bëgg nga ubbi sa bëtub càmmooñ kek ci bëtub ndeyjoor bu ko defee ma xam ne dee nga mu ne xuleet ñaari bët yi nii mu ne ko ah kon yow dee nga xaaral ma daw sax barag maa lekk yow mii ay pexe nga nal daal ni fër naaw ànd doom ya dem gis nga de àdduna bi fii la toll maanaam yépp koom-koom ku ne la nga daan am mënatoo koo am ku ne jaaxle waaye mbir mi nag bu tollee fii bu ci ñaaw bu ci def lu ñaaw nañ teg digle yi te bàyyi tere yi te nag maam ne woon na bu demee ba jaaxle bay dundee ngi fi Demba Malick nan xalaat ci bay dundee